li ci yéenekaay yi li ci yéen kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye daal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door critique yéenekaay yi dina xamale bi nga xam ne moo jëm ci CFEE bi ak entrée en sixième yéenekaay gi duñu xamale élèves yi war nañoo jàkkaarloo moom moo di épreuve yi ci réewum Sénégal nag jamono ji lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi junni yu tegal juróom-ñett téeméer ak fukk ak ñaar mooy dong yi nga xam ne daal ñoo yittewoo googale ko diplôme yéenekaay gi duñu xamale jamono ji nag examen bi dinañu ko door fekk jamono jojee critique yéenekaay yi xamal ne gannaaw nag lu jëm ca googalay fànn jamono ji àttekat yi nga xam ne rek ñoom ñoo di Ousmane Kane jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la ñuy maanaam daal ñàkku yar gu nga xam ne dañu ko nemmeeku ci ñenn àttekat yi rawatina ñu ndaw ndaw laas yéenekaay du ñu xamal ne ji kay attekat yi nga xam ne ñoo doon atte ñoom ñoo am jafe-jafe kay bari lool ndax ki nga xam ne moom moo di Ngor mii nga xam ne rek dañu moo gën jafe-jafe ci ni nga xam ne rek ñoom ñoo di attekat yi ak rawatina ñàkk teggin gi nga xam ne rek dañu koy nenne ca jamono jojee Sud Quotidien yéenekaay du ñu xamal ne ci réew mi président de la République Macky Sall la mu bëgg moo di ñaar fukki fan ak juróom

moom moo di Mali le témoin yéene kaay duñu xamal ne soldat yi nga xam ne rek ñoom ñoo wa kay mën nañoo dellu ci seen bërëbu liggéeyukaay ndax jamono ji danañ fa amal ay élection yu jaar yoon daal jël nguur ga nag koy jox ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di civil imam di ko mi nga xam ne bokk na ci li jafal yëfe yéene kaay gi duñu xamal ne moom imam bi kay nag jamono ji daanaka kenn du ko andi foofu ëllëg musiba am ñu koy joxoñ baaraamu tuuma jiitu réew mi Macky Sall ne leen di lijjanti loolee teg ko ci yoon l'évidence yéene kaay nañu jamono ji jëwriñ ji bañ libération yéene kaay duñu xamal ne Sénégal ak Akileeg ak seen coow li jamono ji nag ARMP ragal nañu der ki nga xam ne rek moom moo di Makhtar Cissé fekk jamono jojee l'évidence yéenekaay duñu xamal ne màggalu Tuuba gi mën ngeen a xam ne dina am na ay ñaan jàng alxuraan ak xasida ngir ñu daal koy waajalee màggalu Tuuba l'évidence yéenekaay ko bind les échos duñu xamal ne Serigne Kossa Mountakha wax na dëgg nguurug Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo nekkee ci Afrique ñi nga xam ne rek noonu la doxale lu jëm ci troisième mandat ak yeneen di ponk yoo xam Elage a Ndiaye